ñu ngi waajal juróom-ñetti fan ci weeru juin Serigne Mame Mor Mbacke eh, ñu jëli ko mbokk di ko siyaare moo war a ci kanam tuuti nag moo war a génn eh, jokkoo ak mbokki talibé nga xam ne ñu ngi fi mbokk yi te it bés la boo xam ne eh, dañu ciy delloo njukkal ki nga xam ne moo décrété woon 8 juin def ko Cheikh Ahmad Bamba Dey gannaaw bu ñu ci royee xam ngeen ne foofu la ñu njëkk a amee euh, Bamba Day tey kii di Gatti lañ koy wax maire la woon bu Pontevico daal di décréter bés boobu def ko Cheikh Ahmad ñu di ci ànd ak mbokki talibe yi tey ñoom ñëpp dañ koy delloo njëkkal gannaaw bu ñu teeroo Serigne Mamour Mbacké ba mu yegg si ci kër sëriñ Touba yi incha allah ci kanam tuuti rek danañu génn fas yéene ànd ak yéen dund. li nga xam ne mooy 8 juin te dooree ko tey ji ci juróom-ñaari fan ci weeru juin eh, fii ci eh, Ponte Vecchio asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu mbokk yi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel fii ci barab bu sell bi di jumaa ji nga xam ne moo nekk fii ci biir kër Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul fii ci Ponte Vecchio te góor yàlla Cheikh Mouhamadou Mourtada fàggu woon ko xam ngeen dëkk bi di Ponte xam ngeen ne dañoo décrété woon gannaaw bu maire bi yëkkatee bés juróom-ñetti fan ci weeru juin daal di koy jagleel Cheikh Ahmadou Bamba loolu nag mu royee ci Bamba Day ba amoon ca New York boobu ak léegi nag xam ngeen ne mbokk yi góor yàlla yàgg ànd ak yéen tey Serigne Mamour Mbacke gis ngeen ko yegg si na ñu teeru ko teeru bu rafet mbooloo mu takku ñu fas yéene ànd ak yéen nag dundal li nga xam ne taarix daf koy retenir. ndax fii ñuy wax ak yéen nii ñi nga xam ne ñoo njëkkoon a nekk fii ci kër gi di ci ànd ak Cheikh Mouhamadou Mourtada ba mu fàggu ko ñooñu tey seeni i doom sax dañoo nekk ay mag tey dooni kilifa juddoo ci dëkk bi màggee ci dëkk bi defee fi lépp gën a doon ñëpp murid sadeex taxawu tey pour yanuwaat liggéey bi yóbbu ko foo xam ne nii fu kawe njort lay doon loolu di ngeen ko gis ci biir reportage yi nga xam ne nañ ko def fii ay tout tànk yoo xam ne nii fii lañ léppee bu ñu jàngee xasida nga yaakaar ne ñoo ak gone yi ci tubaa ñoo juddoondoo màggandoo foofu bu ñu jàngee alxuraan bu ñu firee xasida yi Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul yi nga jàpp ne ñoom ak gone ya nekk ci tubaa la déedéet gone yi mooy gone yi jàmbaarul islam ju góor yàlla waxoon na nañ leen gàttandu fàggu kërug lislaam goo xam ne nii doon di leen ci yar jàngal te du leen tere xam-xamu àddina bi nga xam ne nii war nañ koo xam ñu di ko xam ñooñu nag tey màgg nañ dinañ ci jël ñenn ci ñoom ngeen xam ne mission wu góor yàlla mel na ne génération bi ko war yóbbu fu kawe njort yegg si nañ ndax ñu ngi fii ci dëkk bi di doon ay italien kenn ëpp leen fi ay droit mën a jàng xasida mën a jàng alxuraan xam histoire de sëriñ bi mu ñor leen lool nag tey màggal yi nga xam ne ñu ngi koy def boobu judooguñ bu ngeen xoolee image di ngeen gis mooy xale yu góor yi ngeen di gis mooy xale yu jigéen yi ngeen di gis am na ci ñoo xam ne tey am nañ borom kër am na ci ñoo xam ne tey am nañ soxna waaye ñoo laxasaayu fas yéene wuutu seen jur yooyu nga xam ne ni ah gàcce gaalaama loolu nag lañ bëgg a ànd ak yéen rek dund ko fii ci Pontevico di 8 juin 2019 ànd ak Serigne Mamour Mbacké ak sunu réalisateur caméraman bu xarañ bi di Mbaye Niang kon mbokk yi ñu ànd ak yéen rek ñu dugg 8 juin dooree ko ci 7 juin bi nga xam ne nii gàtt ki nga xam ne nii moo décrété woon Cheikh Ahmadou Bamba Day bi fii maye ko ne bu kenn liggéey te dañ lay fay mu doon férié boo xam ne ni kenn du ko liggéey gàtt yi moomu nag mburit yi xam nga danoo gore ñoo wax ne tey juróom-ñaari fan ci weeru juin dañu koy delloo njukkal loolu yëpp dañ ci fas yéene ànd ak yéen incha allah jërë ngeen jëf alhamdulilahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada sayiduna muhammadin wal ali wa sahbihi sabil na wali bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu jàkkaarloo ak nun asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu noo ngi sant sunu borom subhanahu wa taala di julli ki sangu-sang sallallahu alayhi wa sallam di delloo di santaat sunu yaakaar yi tey ëllëg Cheikhuna Ahmadou Bamba Khadimal Mustafa ñoo ngi fii ci kër Serigne Touba gi nekk ci euh, Pontevico euh, ci Brescia euh, tey yamoo ak ajjuma le 7 juin 2019 ñu ngi ci cadre liggéey bu rëy bi nga xam ne liggéeyu l'islam la bu l'ambassadeur de l'islam comme il me plaît à le dire et à le répéter Serigne Mamor moom Cheikh Mouhamadoul Moutada ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér. Eh, ba lépp li mu bëgg liggéeyal maam gi tedd ja sof ko ci liggéeyam wajur yi bu tedd ba mottali ko di teg nuyoo boobu ci loxoom mu tegal nu ko ci sang bu tedd bi nga xam ne muy kilifa ku yaakaar seexul xadim muy sëriñ Muntaxa ibnu Cheikh Mahamadul Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér euh, ginnaaw bi nga xam ne yàlla dogal na sëriñ bi bàyyi ko na euh, Sénégal euh, tàbbi si Europe mi ngi njaal beneen liggéey bi fi nga xam ne moom mooy Genève mbooloom sëriñ Tuubaa mu takku ne fa liggéey fa fa am solo ànd ak sëriñ Moutala Mbub ak ay sëriñ Tuubaa am solo ci am du ñoom ñu liggéey fa bu am solo ziyaare sëñ bi ba fa sëriñ bi jógee nag xam ngeen ne ci la tàbbi Italie barab bu njëkk bi nga xam ne fa la liggéey bi tàmbalee si itali moom mooy fi nga xam ne moom mooy Touba foofa tamit ñu def fédération bu am solo euh, di euh, Palermo euh, Catania Modica Agrigento wax dëgg yàlla ak dëkk yooyu yëpp ñu taxaw mobilisation bu am solo yàlla def nag ren muy bis bi nga xam ne mooy njëkk ci euh, kër Serigne tubaab yi nga xam ne mbokki taalibe yi saytu nañ ko fa foofu nga xam ne mooy Catania bokk ci dëkk yi gën a mag ci euh, dun boobu nga xam ne moom mooy euh, Sicile wax dëgg yàlla mbokki taalibe yi tatagal Serigne bi nañu ko baaxoo di def yëkkatil ko ay xasida wax dëgg yàlla ànd ak mbokki taalibe yi ñu ngan di seen ngan gu mucc ayib Serigne bi itam def na mu daan def gisante ak autorités yi waxtaan ak ñoom ci situation bi nga xam ne Sénégal yi nekkee ndax baaxoo na su ñëwee. dana def ay gise dana dem ci autorités yi xool euh, bokki taalibe yi naka la ñu fi nekkee ndax sëñ Moutalla daan nu dégle réew mi ngeen ñëw ñu jàmmal leen bëgg war ngeen sàmmoo ak li nga xamante kem kàttan seen diine sàmmoo ak li nga xam ne moom mooy àq ak yelleef réew mi sëriñ bu ñëwee jéego yi dana ko def dana dem ci préfet yi dana dem ci sous préfet yi dana dem ci maire yi ak autorités yi ci nekkinu bokki Sénégal yi ñaan lépp luñ ci mën a jàppandal te loi bi bañu ko euh, ñu man leen koo defal bu fi jógee dana dem ci euh, mbokki taalibe yi waxtaan ak ñoom fàttali leen li nga xamante ne moo tax suñu borom bind nu te bàyyi nu fi muy jàmm ko waaye tamit sax ci ndigali Cheikhouna Ahmadou Bamba Khadim Sa nga xam ne lenn lu dul yeesal li nga xam ne mooy euh, la tradition prophétique muy njàngaleem sallallahu alayhi wa sallam euh, euh, nuy ziare bu baax waa Touba Katania Serigne euh, Ibrahima Ndiaye jëwriñ ji Serigne Ablaye Ndiaye ñoom seen daam sekk ci taxawaay bu rafet bi di leen sant di leen gërëm incha allah bi nu jógee foofu Serigne bi tàbbi ci beneen île boo xam ne moom la wax Sardeñ foofa tamit fédération Touba Sardeñ waaye ci njiitu Serigne Moubarak Lo ñu def liggéey bu am solo waa Sardeñ waa Kaal Yari waa Sassari waa Nooro waa Olbia waa Siniscola ñoom ñëpp ndeysaan ànd bokk ndey bokk bàyyi boo boot ci ginnaaw sëriñ Moubarak loo euh, ñu wax dëgg yàlla teertu sëriñ bi sëriñ bi gis na fa ba tey ni ma ko waxee léegi ak préfet préfet bi doon euh, ku jàmbaar wax dëgg yàlla ko ubbiku euh, wax dëgg yàlla am lu am importance lu am particularité dafa am mooy temps bi nga xam ne préfet bi jox nañu ko benn autorité mosuñu ko jox déglu sëriñ bi weccanteeg moom ay kaddu dalal xelam ci mbokki taalibe yi nekk rafet fa ndekkee ci teewaayu sëriñ Moubarak Lo sëriñ Malick Diaw sëriñ Abdou Ndiaye ak mbooleem dignitaires yi nga xam ne ñoo fa nekk sëriñ bi tam def na fa jikko bu am solo dafa am ay bokk yoo xamante ni sëriñ Cheikh euh, yàlla dafa def euh, ñu def benn accident euh, ci yoon wi kenn ci ñoom di woon jàmbaar lool di aali ñu ngi koy jaal ay mbokkam yàlla dogal mu faatu sëriñ bi dafa dem ba ca morgue ba ñu wan ko koor bi mu ñaanal ko muy geste boo xamante vraiment ki ko gis ak sa yaram daw na kon bokk na ci li nga xam ne moom lay dox mooy doomu aadama moom la def au centre de muy insaaniya moom la def muy sëñ Mamour muy geste boo xam ne ñëpp apprécié ko yëmu ca ñi nga xam ne ay blessé lañu ndax yàlla def na wax dëgg yàlla yàlla na fa yem kooku rek moo ci faatu ñi nga xam ne ay blessé lañu sëñ bi ñeenti opito def na ko dem seeti leen ñaanal leen muy loo xamante ni histoire dana ko bindu rafet euh, bokk na ci li muy def an fu mu dem fekk bu am ku fa nekk ci jafe-jafe dana ko seeti ñaanal ko dalal am xelam. Ehm, doon nañ ci seere ndax ànd nañ moom ci ay barab mu seeti ay mbokki taalibe bi sëriñ bi jógee foofu am na marche bu am solo boo xam ne am na Cagliari ndax xam ngeen ne Cagliari c'est la deuxième proclamation de la journée Cheikh Ahmadou Bamba sur le sol italien après celle de Pontevico bi nga xam ne mooy bu bi euh, euh, muy le juin waaye xam ngeen par souci de calendrier euh, moom ndax ñu indi ko le 6 bi sëriñ bi jiite marche ba ita sasari gépp ñëw ci piazza bi gën a mag ci Cagliari nga xam ne mooy chef-lieu région ba ñu daje fa dox dox bu toll ci 600 mètres di tudd euh, baatu euh, kennal yàlla muy laa ilaaha sayyidinaa Muhammad rasulullah mbokki taalibe ànd yëkkati ay banderole bind ci ay message yoo xam ni mooy njàngalam sëriñ bi ci tolérance ci dialogue waaye ci euh, coexistence pacifique mbokki taalibe yi yëkk fa ay xasidu am solo ñu def fa mi ngi fekk ki nga xam ne mooy son excellence Rokhaya Ba Touré consul général du Sénégal à Milan moo ko gàttandoo na ko daan gàttandoo ànd ak délégation bu am solo bokki taalibe yi euh, jóge fu nekk ñu def délégation bu am solo euh, ñu fekk fekk nga xam ne mooy rekk sëriñ bi de koo xam ni fu ñu gëstoo gis ko ci liggéey bi muy sëriñ Abdoul Ahad Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadoul Moutada mu tatagal ko ànd ak kilifa yëpp ci la ñu àndee cortège bi ñëw fii ci kër sëriñ Touba ci Pontevico nga xam ne bokk na ci kër yu njëkk ci Italie Euh, ñu accès Touba Pontevico nga xam ne bokk na ci kër yi njëkk ci itali ginnaaw bi nga xamante ne sëriñ bi ñëw na fi vers les années 92 daal di digle ñu sàkku ay barab bi yoo xam ne bu ñu ci déggee kër gu ñuy nelaw sëñ Murtada mu sax ko sëñ Touba bare bi lislaam lay wax te du barab bu ñuy tëdd ko jóg barab bu ñuy jàngalee diine la barab bu ñuy jaamoo sunu borom subhanahu wa taala la ndax sëñ Touba daana wax ne wajxal buyuti kullaha masajida yaa naafe mën la yakunu mën la yakunu sajida defal barab sama bëgg kër yëpp ñu nekk ay jàkka loolee tamit euh, euh, confirmation baa ngi nii barab bi nu nekk mooy Touba Pontevico bokk taalibe yi saytu ko muy barab bu mucc ayib euh, bi nu fu ñu gis ngeen mbokk taalibe wax dëgg yàlla ko rénové tubaarkalla salle bi mooy salle de prière bi fa la ñu jullee korité sëriñ Fallou Mbacke Mbàkke bi tamit nga xam ne mooy imaamu Touba Ponti bi ko te Serigne Mouhamadul Moutala tànn loon ko boppam muy wàkk Serigne Abdoul Latif moom Serigne Afé euh, euh, bokk lépp maam Cheikh Anta borom gaawaan moom mooy ilimaan ji taxaw fi taxawaay bu rafet. Euh, incha allahu rabbi di ko njukkal ci bis bi ginnaaw bi sëñ bi da daayir yi ñëwee ci Italie gépp 8 nag ñu bañ a jàpp ne Brescia rek lay am bokk Italie bi yëpp a ko bokk Italie gépp a ko bokk ndax sëñ Tuubaa def na woon inni uxaatibu nasara turra fii ardihim limaliki mutarra tawat xam na bi ànd ni di lay abdul xadim la kon confirmation ba mi ngi woo ñëpp incha allahu taala fas yéene ak yéen lépp lu fi rek bu soobee yàlla da ngeen ko bokk ak ñun ngeen àndoon seen mbokkum taalibe Cheikh Mbacke Mboub Géewlu Xaadimal Moustapha euh, nekk président commission euh, communication confédération des Cheikh Amadou Bamba Xaadimal Moustapha kon incha allah ngeen ànd rek ñu topp événement ba ci kanam salaamaaleykum wa rahmatullahi wa waajalee juróom-ñetti fan eh, ci weeru juin gis ngeen jigéen ñi a jekk ay jàmbaar lañ mës a doon moo xam ñu nekk ca senegal moo xam ñu nekk ca fii gis nga leen seen njaboot gaa ngi nii di leen wut ci liggéey bi góor yàlla yow doo dafa mel ne kenn ci eh, ndaw yi nga xam ne yaakaar naa am ngeen kuréel ngeen di taxaw taxawaay bu mat sëkk bi ngeen fekkee seen wajur yi di liggéey liggéey bu am solo fii lan ngeen di def ci waañu yéen. waaw barkeb Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou Serigne Béthio Diagne Serigne Saliou yàlla yërmandeem sax ci ñun waaw maa ngi siyaar mbokk taalibe yëpp di leen ziar di leen ci bés bu tedd bi nga xamante ne mooy Ortu nga xamante ne Serigne Mouhamadou Mourtada moo ñu ko baaxee muy bés boo xamante ne nii bés bu ko rëy ba gën a rëy bés bi ci ñun ginnaaw màggal Tuubaa bu weesoo waaw ñun de ay tànk lañ nekk ci waañu di xidma di ay baataal teg ci waaye liggéey bi dañ cee fekk suñu waajur ñu teg ñu ci ba tey ñu formé ak ay tout tànk yoo xamante ne nii euh, ñu bokk ci benn commission ñu nga wax commission ne joobal yi ñun ñu bokk ci ñi nga xamante ne ñoo jiite organisation bi euh, nekk ci wàññi tamit waaw loolu daal fi mu toll liggéey bi ci ñu toll maanaam añ yi la ñuy soog a defar nii waaw yéene jëm ci ndawal geeg yooyu xeet su demee noonu daal waaw fi mu toll daal ci diggante boobu daal lañ toll duñ daal ak sa waaw waaw doy gi moom. ndax euh, bés bu nañ ko ndax euh, loo xamante ne def na ko ay ati euh, ci koor fekku la woon ci koor yaakaar naa ne am na loo xamante ne xam nga ko ci te jënd nañu 1700 kilos ci ndawal gi war ci jël 1000 xamante ne nii maanaam ci wàllu añ war cee def 35 ci ay ay mbana yoo xam ne moom lañ fas yéenee berndele ak yeneen xeet yoo xam ne dañ koy booleeg moom. jàpp naa ne daal moom bu soobee Serigne Sall moom dana